responsables et militants de PASTEF pour cet accueil chaleureux. Nous tenons également à exprimer notre profonde reconnaissance au président de PASTEF, les Patriotes, notre grand frère, notre camarade Ousmane Sonko. Nous aurions pu tenir cette déclaration au siège de FDS, les Guéloirs, Kër Gelwaar qui a abrité justement nos dernières rencontres avec la presse. Mais nous avons choisi cet après-midi de nous déplacer ici à Kër Maodo, siège de PASTEF les Patriotes. Et pour nous, ce choix revêt un caractère fort symbolique. Parce que et tous les Sénégalais sont en témoin, le premier leader politique qui a eu à prendre position officiellement sur cette affaire, c'est le secrétaire général de FDS, Dr Babacar Diop. À une période où même le président Ousmane Sonko n'avait pas encore livré au Sénégalais sa version des faits. Nous l'avons fait parce que nous avons estimé qu'on n'avait pas besoin d'entendre le président Ousmane Sonko pour savoir que toute cette affaire relève essentiellement d'une cabale politique, une cabale contre laquelle, au-delà même des responsables de PASTEF, au-delà même de l'opposition, tous les Sénégalais doivent se dresser. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement ici même pour dire aux Sénégalais que FDS a choisi son camp. FDS a choisi le camp des démocrates et des patriotes qui se battent pour préserver les acquis démocratiques que le président Macky Sall cherche à démolir depuis qu'il est à la tête de ce pays. Je voudrais simplement rappeler, avant de passer la parole au leader de FDS, qu'il s'agit d'une déclaration de presse et non d'une conférence de presse telle que ça a été convenu. Donc il n'y aura pas de questions à la fin de la déclaration. La déclaration également sera lue en Wolof après la version française. Donc merci à tous de votre présence. nous donnons la parole au secrétaire Les Guelwaars, Dr Babacar Diop. Merci <coughs> Mesdames <coughs> et messieurs les journalistes, chers compatriotes, c'est un honneur d'être ici au siège de PASTEF, les patriotes qui portent le nom d'un illustre patriote, le président Mamadou Dia. dont l'évocation du seul nom rappelle un pan important de l'histoire de notre pays, dont le nom rappelle la dignité, la liberté, la démocratie. Mes chers compatriotes, l'affaire Ousmane Sonko révèle le vrai visage du régime de Macky Sall qui cherche à transformer le Sénégal en dictature à ciel ouvert, sous couvert d'institutions démocratiques. depuis son accession à la magistrature suprême en 2019, Macky Sall est habité par le sentiment quasi obsessionnel de brimer dans la violence le sang et les larmes les droits constitutionnels des opposants, de vicier le processus électoral pour conserver le pouvoir de restreindre les libertés civiles et publiques en utilisant les institutions de la République. Toutes ces pratiques ont pour finalité d'éliminer les voix dissidentes et les critiques contre sa gouvernance calamiteuse et autoritaire. Les Sénégalais on compris que les enjeux de la solidarité envers Ousmane Sonko vont bien au-delà de l'urgence de préserver le destins politique du leader du PASTEF, qui est à nouveau victime d'une cabale ignomineuse visant à l'éliminer politiquement et moralement. C'est la raison pour laquelle nous appelons le peuple souverain du Sénégal à résister pour restaurer notre démocratie qui vient de recevoir un nouveau coup de massue. Et surtout, l'éthique républicaine a été piétinée de manière répétitive par ceux qui détiennent un pouvoir qui ne se fixe aucune limite dans la malfaisance. Mes chers compatriotes, Il est regrettable de constater qu'au Sénégal, les institutions de la République sont devenues des instruments au service d'un individu et de ses fantasmes les plus obscurs. Le Parlement sénégalais, installé en 2012, est très tôt embaumé et a perdu toute crédibilité. Il a cessé de représenter la nation sénégalaise. Les députés ont refusé d'être la voix du peuple pour devenir celle d'un homme. De même, le pouvoir judiciaire, qui est censé appliquer la loi et jouer le rôle de contre-pouvoir à certaines décisions liberticides de l'exécutif, est désormais empêtré dans la corruption la compromission. Que valent encore pour l'opinion publique sénégalaise ces institutions dont l'image et la crédibilité ont été ébranlées depuis le procès de Mamadou Dia en décembre 1962, ainsi que dans les affaires Karim Wad, Khalifa Ababakar Sall et aujourd'hui Ousmane Sonko. la convocation totalement illégale du député Ousmane Sonko à la section de recherche de la gendarmerie au mépris de son immunité parlementaire, l'encerclement injustifié de son domicile par des chars de combat, le fiasco au sein de l'Assemblée nationale pour lever son immunité parlementaire afin de le livrer à une justice aux ordres, signale une absence de justice équitable dans cette affaire dont le régime de Macky Sall est le principal commanditaire. Les Sénégalais ont appris des affaires Karim Wad et Khalifa Ababakar Sall et à leur dépens que les juridictions du pays sous Macky ne sont pas indépendantes pour arbitrer de manière équitable entre deux parties. Cette situation devient encore plus inquiétante quand cette réalité nous a été régulièrement rappelée par les juridictions internationales comme la CDAO et les Nations Unies sans qu'aucune mesure corrective ne soit apportée à cette justice soumises. De ce passé récent, nous présageons qu'elles ne seront pas de nouveau à la hauteur de la tâche dans cette affaire Ousmane Sonko, en raison de la nature et de la relation institutionnelle entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, en particulier la soumission du premier au second. Dans un pays où les coupables affiliés au régime et épinglés par la justice sont libérés, tandis que les innocents sont condamnés. Les citoyens perdent leur confiance en la justice. Tout dans les actions de Macky Sall indique qu'il à restaurer un parti-État digne d'une époque révolue. Dans sa tentative de confisquer le pouvoir et de combler le déficit de légitimité de son régime, il agit de plus en plus de manière à compromettre les libertés politiques, le multipartisme et le pluralisme, principes fondamentaux de la démocratie. Les actes qui remettent en cause ce multipartisme et ce pluralisme se sont multipliés. D'autre part, Macky Sall cherche à garder les alliés d'une faction présidentielle hétéroclite en utilisant des vieilles méthodes clientélistes et néopatrimoniales qui ont créé un terrain propice à la mauvaise gouvernance. D'autre part, dans la mesure où cette coalition se fissure et conscient de son incapacité à gagner la confiance du peuple sénégalais qui s'érode de jour en jour, il poursuit une stratégie de concassage de l'opposition pour empêcher l'émergence d'une alternative viable et crédible. Après avoir manœuvré âprement pour briser le Parti démocratique sénégalais, PDS, l'Alliance des forces du progrès, AFP, et le Parti socialiste, PS, en plusieurs tendances rivales. Le régime de Macky Sall instrumentalise aujourd'hui la justice, dont l'indépendance n'existe dans l'imaginaire du peuple, à des fins de liquidation d'adversaires politiques. Ousmane Sonko, est un homme politique de premier plan qui est arrivé troisième lors de la dernière élection présidentielle avec près de 16% des suffrages. Aujourd'hui, plus que jamais, il est un symbole de la conscience de rupture qui bouillonne chez des millions de Sénégalais. Son engagement et celui de nouveaux acteurs sur la scène politique est révélatrice d'une mutation profonde de notre société. C'est un grand élan de changement que les tenants du pouvoir veulent briser. Aujourd'hui, plus que jamais, mieux que jamais, autant que jamais, le régime de Macky Sall veut utiliser cette cabale créée par lui-même comme prétexte pour frapper très fort au cœur du dispositif de PASTEF et ses soutiens afin de parachever son œuvre programmée de liquidation totale de l'opposition. En définitive, Macky Sall veut instaurer au Sénégal la réalité d'une démocratie sans adversaire. Nous sommes convaincus que toute aspiration à un changement pacifique à la tête du pays doit passer par des élections libres et transparentes. Mais les tenants du régime en place n'en ont cure. Ils ignorent que si Macky est arrivé au pouvoir par les urnes, c'est parce qu'il y a un processus de libéralisation préalable du champ politique et une œuvre sans cesse renouvelée de perfection des règles du jeu qui ont permis au pays de tourner la page des émeutes post-électorales pour inaugurer une ère de transition politique pacifique. Jusqu'en 2012, le peuple sénégalais pouvait encore espérer que l'expression de son vote ouvrirait un univers des possibles où l'opposition aurait des chances réelles de participer au jeu électoral et d'espérer gagner contre un candidat au pouvoir. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Macky les possibilités pour les citoyens de choisir librement entre plusieurs candidats et partis sont restreintes. L'élimination de milliers de jeunes du processus électoral La confiscation de milliers de cartes dans les zones supposées hostiles au pouvoir et dans la diaspora. L'instauration de deux types de Sénégalais, en l'occurrence ceux ayant le droit de vote et ceux n'ayant plus ce droit en sont quelques mbokku waa Sénégal am nañu mbégte ñëw fii ci makaanu Pastef ñu tub duppee kër président mamadu ja muy tur wu màgg woo xamante ni day fàttali histoire day fàttali cosaan day fàttali jom day fàttali bëgg sa réew kon ku gis président Mamadou ja mënatuloo tiit mënatuloo ragal mënatuloo rafrafi mënatuloo dellu gannaaw ñi ñëw fii ci makaanu Pastef ngir indi suñu jàppale suñu taxawu suñu dooleel suñu wetal ci usmaan Sonko nga xam ni saay-saay moo ko tuumaal teg ci deram lu ñaaw teg ci deram lu salte ngir toroxal ko ngir gàkkal deram ndaxte réew mi ñi ko ŋànk jiite ko ñoom lu tilim lañ xam ñoom jubadi lañ xam ñoom lu salte lañ xam ñu dem ba am yéene gor yi nekk ci dëkk bi bëgg gor yooyu di laqatu bëgg gor yooyu di tëju bëgg gor yooyu dootuñu amati fit dootuñu am taxawaay ngir waxal seen réew ngir waxal seen askan ngir xeexal seen réew jëf ju ñaaw jooju wax ju ñaaw jooju moo tax ñu jóg di woo askanu senegaal di woo aji bëgg réew fu mu nekk di woo góor ak jigéen di woo senegaal ñu taxaw ci wetu Ousmane Sonko jàppale ko xeexle ko su ko laajee ñu wax président Macky Sall fi muy woo askan wi de du jàmm ay la waaye mbir mi du mook usmaan sonk mook ñépp ñi bëgg dund ci ngor mook ñépp ñi nga xamante ni dañoo bëgg dund ci moom seen bopp mook ñépp ñi nga xamante ni dañoo bëgg dund ci démocratie bëgg dund ci moom Sénégal mook ñoom la bu arrièreul reculé ay wi nga xamante ni mooy am ci réew mi moom moo koy taal bu bëggee xañ usmaan Sonko Sonko ak xam bu bëggee faagaagal usmaan Sonko dina xam ni li xale yi wax guerre day saf mondial guerre bi dina saf mondial ñi bëgg askanu Sénégal ñi yeewoo ci réew mi ñi yeewoo bitim réew ñi xam ni mbir mi du mbiru usmaan Sonko ak mbiru pastif walla képp koo xamante ni jàpp nga ni mbirum usmaan Sonko la walla mbirum waa Pastef la yaa ngi ci réer na nga gindeeku mbir mi ñi ko nos ñi ko taxawal ñi ko xëpp ci réew mi xëpp ko ci waa Pastef seen yéene lenn dong la mooy daaneel démocratie Sénégal mooy nërmeel démocratie senegaal fexe ba nga xamante ni réew mi day dox ñoom ci seeni bëgg-bëgg ci seen bakkan ci seen coobare ca ñoom seeni bëgg-bëgg mooy seeni bëgg-bëgg waaso ak seeni famille ak lañu koy am loolu moo tax a jóg mbir mi ñi xamal askanu waa senegaal ni Macky Sall bi mu toogee ci nguur gi ba léegi day jëfandikoo banqaasu réew mi ci nu ko neexee ngir mën a dal ci gor yi nga xamante ni dañoo nekk ci réew mi li ñuy tuddee justice fii ci senegal bi Macky Sall jëlee réew mi ba léegi Macky day jël justice boobu laab ko tënk ko jatan ko ba justice boobu du am daraja ji ko war a ji ko may mu mën a àtte nit ñi ci dëgg ministre de l'intérieur bii fi nekk bi mu fi nekkee ci justice bi ci CREI yi ñu ngi koy fàttaliku ñoom ci seen bopp ñoo sànq Karim kon ministre de l'intérieur boobu Macky Sall neexale ko liggéey boobu ñu defoon tey nome ko tey jii ministre de l'intérieur moom moome xanaa jàppuma ni rek daa bëgg a njukkeele Macky Sall ci lim ko nommé ministre de l'intérieur mu njukkeele ko Ousmane Ousmane sonk kon mbir mi li ko lal mooy nërmeel démocratie senegal ndax justice amatu fi justice boobu moo xañ Karim Wade bokkul ci élection 2012 foofu mu jaaroon utiliser justice moo ko mayoon mu fexe ba xalifa Ababacar Sall bokkul ci élection yi bukki bi fa jaaroon mattoon ñu bukki boobu moo ñëwaat ndax nag Sall Biége mi ngi nekk ci réew mi nee na moom daa bëgg a nekk champion ca làmb ja ca du bëre yaawu jaal sax nangu naa bëre moom nee na dafa bëgg a nekk champion ca du bëre mbër mu jóg taxaw di kaamil saala biigéen ni takkal leen ma loxo yi yeewal leen ma tànki kon saala biige li ko tax a jóg ci mbir mii du lenn lu dul troisième mandat ci boppam la bëgg ca ragal mbër yu mel ni usmaan Sonko bu askanu senegaal seetaane fi mu jaaroon ak Karim Wade fi Sala Bigué jaaroon ak xalifa Sall foofu la Sala Bigué di jaar ak usmaan Sonko loolu moo tax askanu Sénégal war a jóg taxaw wala jàmmaarloo ak moom fii ci Ndakaaru ci biir réew mi bitim réew góor ak jigéen mag ak ndaw organisation société civile ak parti politik képp koo xamante ni jàpp nga ni mbirum usmaan Sonko la wala nga jàpp ni mbirum waa Pastef la juum nga ndax bu saala biigee paree ci Ousmane Sonko ak Pastef ci ñeneen ñi lay dal ci seen kaw kon nañu jóg ba jamono bi nga xamante ni ci lañuy amee ay tànk di woote. askanu senegaal yépp diwoo kilifa diine di woo kilifa aada di woo mag di woo ndaw diwoo góor diwoo jigéen diwoo ñi nga xamante ni dañoo bëgg réew mi bëgg jàmm ci réew mi yéene jàmm ci réew mi mbir mi ñépp la soxal ndaxte jàmmi senegaal moo nekk ci biir lépp loo xamante ni day indi rëg-rëg ci réew mi bu ñu ko séenee muy ñëw mu nekk jéeye nekk ab séb nekk ab taal waruñoo seetaan ñi war a wax nañu wax ñi war a taxaw ñi taxaw temm jàmmaarloo ak moom ci fulla ci fayda ci bëgg suñu réew ci fit ba lépp lum ñuy woo ñi mën a taxaw wuyusi ko ci Salla Bigué nanga xam ni Sénégal bañ na Salla Bigué nanga xam ni Ndakaaru Njaay bañ na Salla Bigué nanga xam ni Ceeskaay bañ na Salla Bigué nanga xam ni Siin Saalum bañ na Salla Bigué na xam ni Ndar bañ na Salla Bigué nanga xam ni Casamance bañ na Salla Bigué na nga xam ni doomu senegaal yi nga xamante ni dañuy yeewoo bitim réew ak fu ñu mënti nekk bañ nañu ni lii nga xamante ni tër nga ko jàpp ni dangay rendi Ousmane Sonko paaka boobu ci sa kaw la jëm ak sa régime waaye lii du fi ame ndax askan wi bañ na ci askan woowu dina taxaw jàmmaarloo ak yow askanu senegaal nañu moytu seetaan nañu moytu sama yoon nekku ci nañu moytu am na lu ma tal nañu moytu tal naa leneen ndaxte lii ñëw ñépp di ko séen su ñëwee du bàyyi kenn dafa am walla fii ñoo ko wax nii benn jigéen dafa nekkoon ci néegu ñax di jaaru jamono sedd bi muy jaaru ci néeg bi ñaari sindax nekk ci kaw di xeex mu jàkkaarloog si ndax ñi ne ko kaay àtte mu ni sama yoon nekku ci am na ñeneen ñu nekkoon ci biir néeg bi jinax ñu ne ko kaay àtte mu ni sama yoon nekku ci ñi ni unk ñëwal àtte mu ni sama yoon nekku ci am na ñeneen ñu nekkoon ci kër gi ñu woowi leen aw nag a ngi woon ci kër gi ñu ne ko kaay atte mu ni sama yoon nekku ci am na lu ma am naa lu ma doy xëy fas a ngi woon ci kër gi ñu ne ko kaay atte mu ni am naa lu ma doy xëy sama yoon nekku ci ñaari si ndax yi di xeex ba daanu ci taal bi taal bi daal di këpp néegu ñax ba daal di tàkk soxna si nekkoon ci néeg bi ni yoonam nekku ci soxna sooso daal di faatu jinax yi nekkoon ci néeg ba jinax yooya daal di faatu unku daal faatu bi soxna si faatoo xale bu góor bi nekkoon ci kër gi ñu ni ko jëlal fas wi nga dem tàgge ji mu jël fas wi di ko dawal di ko dawal ngir dem tàgge ji ba daanu ci am pax moo xamante ni mook fas wa fa yam xale bu góor ba dee ca pax ma fas wa dee ca pax ma ñi xëy war a dëjal xale bu góor bi war a dëjal meer bi nag wa nekkoon ca kër ga ñi rey ko def ko sarax noonu la kër googa daldi tase ca la ko indi mooy sama yoon nekku ci meer bi bu ca yoonam nekkoon kon doon na sauver bakkan ña nekkoon ca biir néeg ba bu ca seen yoon nekkoon doon nañ sauver seen bakkan xale bu góor bu ca yoonam nekkoon kon mbir mii ci senegaal daanu si ci réew mi bu kenn ni sama yoon nekku ci kilifa diine yi seen yoon a ngi ci kilifa aada yi seen yoon a ngi ci boroom xam-xam yi seen yoon a ngi ci góor ak jigéen seen yoon a ngi ci ñi nga xamante ni bañ lañ leen xame bëgg seen réew seen yoon a ngi ci bu ñëpp defee liñ war a def dëgg dina am bu ñëpp liñ defee liñ war a def jàmm dina am jàmm nag Sénégal dañ koy woote ko wax mu ni jàmm lañu bëgg waaye jàmm mënta am lu dul dëgg am jàmm mënul am lu dul yoon am jàmm mënul am lu dul ku nekk lii sa àq nga jot ko waaye képp koo xamante ni jàpp nga ni bànqaasi réew mi mën nga koo jël du ko doxale na noo neex ku la neex nga toroxal ko ku la neex nga dal ci kawam ku la neex nga jàpp ko tëj ci kaso bi ba pare di woote jàmm loola indiwul jàmm loola yee fitna la loola yee ay la kon ñun dañoo ñëw fii ci siège u Pastef ngir biral suñu kàddu boo xamante ni mooy jàppale Ousmane Sonko di ci woo opposition sénégalaise di ci woo leader yi nga xamante ni ñi ngi ci biir opposition bi nañ ko def seen yëfu bopp ñu gën a yëngu bu baax a baax gën a yokk taxawaay bu baax a baax gën a yokk fulla ak fayda gën a yokk taxawaay ci aar démocratie ci xam ni defaluñ ko Ousmane Sonko waaye ci jataay bii dinaa ci profité ngir wax ak Sala Bigué ni ko ñi nga xamante ni jàpp nañ leen jaay leen doole tëj leen ci kaso yi muy 34 militants yu Pastef fii Sala Bigué ñi ngi lay wax na nga leen bàyyi su fekkee bëgg nga jàmm ci réew mi Sala Bigué ñi ngi wax ak moom ni ko Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène mi nga xamante ni sa police ak sa gendarmerie ak sa ministre de l'intérieur teg na leen loxo na leen bàyyi su fekkee bëgg na jàmm ci réew mi loolu daal moo waraloon suñuy tànk tey fii ci makaanu Pastef ngir indi suñu jàppale suñu taxaw ci président Ousmane Sonko mu xam ni xeex bi du ci wéet saa su tourné dina gis FDS les Guelwaar ci wetam ñi bokk ak moom xeex bi ngir aar Sénégal aar suñu démocratie aar suñu moomeel aar suñu suuf aar suñu dundin ci jàmm ndax mbir mi liñ ci dëxëñ li nekk ci biir